li tax mu roof ma ko mooy dama def vidéo mu commenté ko indi ca benn xadis boo xam ne bii romboon naa ko at yële ci ginnaaw mu duggoon ma lool ba ma defoon ci benn xamtu benn alaama nga xam ni léeg-léeg sax ma delloo siwaat xadis ba xoolaat ko ba xaw kon daanaka mën naa wax ne xadis la bu ma xaw wattu waaye nag mbokk moomu kon ñu sant ko gërëm ko ci baaxe googu ñu mu ñu baaxee xel mu naaj xel mu liggéey mm, bu ñu gisee ci internet ku commenté bind ci Jamra TV kooku moom moo ñu inspiré loolu xadis bi nag euh, ndey ji mi ngi nekk ci ibnu Maaja ibnu maaja sunnanu ibnu maaja bi soo demee ci xadis bi nga xam ni mooy quatre mille trent six foofu la xadis ba nekk gis nga xamtu bu verte boobu ma ci def ma jàng ko bu ko defee ñu ñëw ci faram fànce gi mu ne xaddasana xaddasana abu bakrin ibnu abi shayba xaddasana yazid ibnu haarun xaddasanaa abdulmalik ibnu qudaama aljumahi an isxaq ibn abi abil furaat an ilmaqburi an abi hurayra radiallahu anhu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sayaati ala annaasi sanawaatun xaddacaatun yusaddaqu fiiha alkaazibu wa yukazzabu fiha saadiqu wa yu'tamanu fiha alxaa'inu wa yuxawwanu fiha al amin wa yantiqu fiha ruwaybida wa yantiqu fiha ruwaybida qiila wama ruwaybida qaala arrajulu taafih fi amri al aamma xadis boobu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ciy wax ginnaaw euh, sanat bi ñu tënk ko mu ne jamono dana mës ñëw wala boog ay at dana mës a ñëw yoo xam ni yi atu wor lay doon atu wor nee na foofee dañu fay dëggal ab fenkat di fa fenloo waxkatu dëgg di fa wóolu ab workat di fa wóolu nit ku wóor nee na foofeet dañu fay may ku ñuy wax ruway bida dañ koy may muy wax am voix am parole ñu ne ko waaw kan mooy ruway bida ruway bida mooy kan mu ne mooy nit ku ñàkk solo su fekkoon dañ koy wax ci baat yu ñu ñeme dañ naan ab sagaru nit moom mooy dem di décider ak di wax ak di am kàddu ci loo xam ne lii nit ñee ko bokk mbokk yi bi baatu rooy bi da boobu ni ñu ko waxe noonu la dikkee noonu tam firi mi defe naa ne soo dikkee ci téere bu ñuy wax alqaamusul muhit bi mu koy définir bi mu koy firi dafa wa rooy rooy tasxiiru raabida maanaam tasxiir mooy tuut ni xaleelal maanaam nekkal ku lu ndaw maanaam koy mi ngi mi mel ne nga naan abdun ab jaam ubaydun as njaam kon ruway bi da nee na tasxiir la ci baat boo xam ni moom la ñuy wax raabida wa huwa ar rajulu mooy ku ñàkk solo ay alxaqir mooy koo xam ni kii ku doyadi yantiqu koo xam ni kii ma wax nag fi amril hamma wa hadha tafsiru nabi sallallahu alayhi wa sallam lil kalima kon kooku moom la ci al mu'jam al muhit wax al qaamus al muhit loolu la ci wax mbokk yi loolu mooy misaal jamono ji nga xam ni ci lañu nekk ñun nga xam ni nit ñi dañuy fekk koo xam ni kii li muy def fen la te fen bokk ci bakkaar yi nga xam ni ñoo gën a rëy ci suñu borom ci kabaa'ir yi ñu bokk nga fekk ko ci loolu naan dégg la laaj fi mu waxee wala nga naan circonstances yi ñoo changé loolu tubaab di wax défendre l'indéfendable nga xam ni nit ki day taxaw fen ba cëg am ñu taxaw di ko défendre défense boo xam ni bii ñoom ñi koy défendre ñoo la gën a xam ne li ñuy défendre du dëgg misaal fekk ñaari mukallaf yu xasante saagante tamante ki jiiñ moroom ma sàcc tudde ko lu ne nag ci xeeti càcc ñuy dem di dem di dem ba tribinaal am ci yoon ñuy dugg ak a génn nit ñi dal di tàccu ñu xëy benn bés ne dañuy juboo nit ñi di tàccu nga wax ca ne li ñu def du jëfu jullit jullit du doxale noonu dundam ndax ki jiiñaate ki jiiñaate war na moom seet ay waxam ba mu leer ko naññi mu soog a jiiñaate ki ñi jiiñ tamit bu tàmbalee te mu wóor ko ne dañ koo tuumaal tuuma joo xam ne jii du dëgg bu tàmbalee procédure am wër te deltu ginnaaw lu lul ab deram dafa set waaye ñaar ñooñu dikk ñu ne daal di dugg ci benn salon waaye ñetteel leen ñu waxtaan tàppante ñu foto leen filmer leen ñu ne ay wa jeex na nit ñi naan ay ñaar ñoo xam ne ñi dañoo jote woon bu ñu demee ba yàgg ñu bëgg a juboo dañ leen a war a applaudir waaye kenn amul loo ci war a wax déedéet loolu du lislaam ñaar ñoo xam ne dañu am problème kii tuumaal na kee bu ñu demee ba juboo li war a am mooy ki tuumaaloon moo war a taxaw ne mankat kat sama tuuma ja weerul yow kat dama la tuumaloon ci sama bakkan jéggal ma mu jéggal ko wala bokk tuuma ji du lu wér ki ñu tuumaaloon ne ay la yowoon li nga waxoon dëgg la man day maa ngi koy tuub di ko jéggalu ñi nga xam ni ñii maa yor seen xàq su dee àq ju ñuy delloo nga delloo ko waaye négociation pëlëm pëlëmal lëndëmal nit ñi dégg nga ñu dog rek comme ça daal di fenante déedéet boobu du lislaam waxul loolu lislaam waxul loolu rawatina nag ay nit ñoo xam ni gasalante pax dong lañu dëkkee ci biir mbir mi mag ñu jëkk ña day dañ daan dee ci xare yoo xam ni léeg-léeg sax du seen xare ndax bu ñu xasee ba joxe seen kàddu bakkan rek lay laaj bakkan rek lay laaj wa isa azamta fa tawakkal ala llaah boobu suñu borom di wax yonent bi boo demee nag ba mbir mi taxaw nag nga dogu fas yéene def ko dara bum la taxa dellooti ginnaaw waaye nit nga dem wax ay wax ba yàgg nga génn ca wax ja ñu ne déete waaye nga daan waxeet maa waxoon waxeet ba loolu léegi dem lu banaal nit ñi ku mu neex wax lu la neex mag ñooñu danga nga leen daan gis sax muy def mel na soo ko xoolee da nga naan dañuy xaru te jom jaag ngor ga dong nga leen sóor ci seen bakkan la leen di jaral maanaam nañu dee ñoom waaye bu ñu fi bàyyi woyub dafa daw dafa fen dafa wor dafa weddiku déedéet mag ñi loolu moo doon seen force waaye comme gàcce moom dootul rayete ci Sénégal bi Sénégal gàcce du fi rayee yow yamuloo ci fen yamoo ci wax weddiku waaye danga ciy boole loolu tubaab di wax arrogance ak désin désinvolture ñàkk jom ñàkk ñàkk ful la fa doyadal li ngay def nga xam ni yow loolu kenn xamul nu ñu ko mën a tuddee nga mën a yow wëlbati ko toogaat ci mbooloo di xool nit ñi yow nga am doom ami doom sax ami jarbaat am soxna muy tëdd di jot muy jàll sa ginnaaw nga waroon a am personnalité ci kanamam yii la xadis bi di bañ xadis boobu tënk gi yépp mooy yii ñuy dund nga xam ne dañu àgg ba ci banaliser ko léegi ku neex tey wax lii su ëllëgee nga wax lee ñaata ñaata diggante at yu gàtt yi loolu ñu wax vaar nga wax lii ñu indi lan la ca des yaa ko waxoon te diggante bi du mat dara bu matoon fanweeri at sax jaaduwul waxuma laak loo xam ne ay at yu gàtt ay weer yu gàtt ay fan ay bës yu gàtt loolu mooy xadis bi bi ci des ci xadis bi mooy loolu tubaab di wax culte de la médiocrité ay sagari nit ngeen baal ma baat bi moom la ñuy yëkkati jox leen parole jox leen audience ñuy wax foo xam ne fii su fekkoon ne dañuy dañuy wax maanaam waroon nañu mën a dund ba ba dee duñu fa dugg dugg ci bërëbu waxukaay boobu ba di fa wax nit ñi di leen déglu di reetaan nit ñi di leen déglu di leen jox ñu leen mais lii di xew ci plateau télévision yi seet leen ko ñu ne déete waaye ñu jël parole jox ko ay nit ñoo xam ni du xam-xam du juddu du xel mu rafet du lenn loo xam ni ndax xam nga ay ay ku taxaw di wax loo xam ne ci biir néeg la war a xew yàggul wax naa leen ko fi tegal naa leen vidéo bi jigéen mu kàllafu jigéen war a am kersa am xorma ngay taxaw di wax naan góor ñi dañuy nàmp sa ween yooyu façon nga xam ni dañu dem ba àddina tukki na kon màndarga yooyu moom yonent bi sallallahu alayhi waxoon na ko dina dikk jamono joo xam ni lii dana am mbokk yi loolu mooy li fi nekk tey jii ko defee nag lu ciy pexe mooy nañu fexe jàng tey jàng tey jëfee jàngal suñuy doom te di leen won exemple ci loolu yow na nga fexe ba bul di fen sa kanamu doom na nga fexe ba bul wax tey jii su ëllëgee loola nga waxoon nga dindi ko ci sa kanamu doom moytu ko ci sa kanami nawle di am looy sàmm mu jaral la tey bu loolu naroon a am mais lu mu gàtt gàtt gàtt gàtt mu jaral la sax yow nga taxaw ak ñooña wax leen sax raison yu valable yoo xam ni tey ku ci téye woon xam ni kii kat ay la yëwan lee la waxoon waaye lii lii kat wecc na loola. ndax addina day tuux tuxu addina day dox xëy na situation dana wëlbatiku waaye loo xam ne yow situation wëlbatikuwul dara soppikuwul lu dul sa bakkan say intérêt sa njëriñ mbokk yi nañu gën a farluwaat ci suñu jikko ndax ji jullit nag. mandargay jullit da ko war a am ci waxam ci jëfam ak ci comportement am assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu